tey yi bàyyi nañ euh, sitting boobu ndaxte démb dañu autorités yi dañoo woote daal di euh, yabal seen ndaw ñu ànd ak ñoom dem ci surtout Lac Rose bi donc bañ demee foofu tamit ñu constaté que y un début de travaux yi ñu ko commencé avec la l' entreprise bi nga xam ni moom moo waroon ko terrasser foofu ñu commencé foofu euh, di terrasser commencé di liggéey ci ci pour dugal machine yi foofu parce que latérite nañ fa sotti war a dugal euh, seen machine yi foofu donc c'est pourquoi après ñu jugé nécessaire après concertation di bureau ñu ne nañu renvoyer euh, kii bi ñu renvoyer le le le sitting il nous a promis que comme quoi que lancement bi dinañ ko def dinañ ko def dès presque la semaine prochaine donc suupa dañ def lancement bi ci travaux yi wax na exactement li nga xam ne tey jii moo indi lenteur yi par rapport ak processus bi nu mu demee woon yëpp donc il nous a expliqué te li mu ñu expliqué tamit ñun en tant que collectif tamit bon dalal na suñu xel ci loolu quoi donc beneen bi mooy ci notification yi nga xam ni joxe woon nañ ko pour euh, des attributions pour euh, surtout Malika ak yooyu yëpp tamit nee nañu ci notification yooyu tamit dinañ fexe ba transcrire que ci euh, def ay procédé ba nga xam ne dañ nañ ko def la transcription pour nga xam ne tey jii notification day dem ci titre bi ci ci titre Lac bi loolu euh, paiement vulnérabilité yi des tamit il paraît que c'est du ressort des préfets et du gouverneur donc commencé woon nañ di fay mais ba léegi desoon na donc ba léegi ñu ngi continuer di say te nee na dinañ def leur effort pour à ce que voilà vraiment euh, dans les jours avant que ñuy lancer le terre là donc ñu fay ci ñu bëri ñi nga xam ne desoon na daal